solom di sant samay ñaari waajur di sant aussi sama sëriñ sama moo tondoo Maulana Mohamed Seni xalifatullah fil ardi di leen dalal jàmm. man maa ngi tudd Mohamed Seni Pouy maa ngi yor bergerie bu ñuy wax bergerie waa kër sang bi euh, ma nekk si élevage laadum bi ñu nekk Wakaam rond point monument renaissance. daanaka biñ si commencé mi ngi bëgg a yàgg su ma juumulee depuis 2013. maa ngi si quoi mais fii maa ngi fi ñëw 2000 2015 quoi fii mooy sama troisième année fii parce que dañ dem ba fi ñëwoon fee mu xat quoi après si lañ génnee xar yi indi leen fii quoi si rond point monument mooy place bi nga gis nii quoi. waaw xar yi yenn yi damay ne juddule d'habitude tabaski bu passé rek man des fois bu ma amee lu yomb damay jënd xar yi après yefal leen yenn yi damay ni jënd yenn d'habitude yenn yi nag des fois ma ay jeunes mâles naissance ma yefal leen tabaski jot ma génne leen jaay mais si ëpp bu tabaski passé. damay jënd ndànk na commencé di embauche quoi boo xoolee xar yi nga xam ne xar yi toppatoo leen quoi parce que daanaka man taw bu passé rek damay commencé jënd xar yi quoi di yefal jëmale année prochaine quoi. xar yi en fait dañoo am spécialement fu ñu leen yefalee quoi am na benn tool boo xam ne fa lañ yóbbu xar yi fa laa leen yefalee quoi duñ nekk ak kii duñ nekk sama kër quoi. tool laa leen yefalee bu affaire jege see mën di leen am na tam en face sama kër benn bâtiment bu ma yor foofu aussi dama yefal foofu ay xar aussi quoi. waaw mais kër ga moom laadu mi rek ñoo fa nekk quoi yeneen xar yëpp ku yi damay ni génne buñ feree rek d'habitude damay ni génne yóbbu leen quoi waaw ba tabaski ñëw yu ma mën a jaay des fois ma jaay géniteur des fois nga jaay noonu ku bëgg a tabaski noonu quoi comme soo xoolee box bee am na ay jeunes mâles yu fa ne si man lañ juddoo aussi quoi doomu wërsëg yi ñoom pratiquement ay géniteur laa leen jaay ko instant yi booy xool moom suñ doom ñaari doomu góor laa si am quoi parce que xaw jigéen mu ñëwee si man quoi daanaka ay jigéen la jur quoi waaw non xari moom xar moom cent mille la commencé jëm kaw quoi waaw cent mille jëm kaw la commencé quoi waaw cent mille jëm kaw quoi prix yëpp am na fa cent mille jëm kaw. des fois nga yokk benn zéro mais cent mille jëm kaw la quoi waaw non mooy la cent mille franchement amu fi. xam nga jamono mooy dox quoi booy xool autant cinquante mille da nga doon am am ay xar yu ngand ngand mais léegi xam nga jamono moo dox dundu xar yi yombatul ngoñ ngooñ tey maa ngi dégg ñuy wax sept mille xam nga. moo tax xar xar cent mille abordable na quoi si man cent mille parce que au au temps xaru cent mille moo doon jox ay cinquante mille mais si man ku jënd xaru cent mille man si man c' est pas abusé quoi waa xar yi am na yu may jaay am na yoo xam damay indi pour décor pour taaral quoi xam nga des fois éleveur dañuy ñëw te moom dafa bokk si ñun quoi man guddi gi booy xool fii laay ne si xar yi laay ne bàyyi quatorze du matin xam nga yàlla daf ñu natoo élevage xam nga day ginaar lépp xam nga yàlla mooñ ko natoo quoi ñu bëgg ko lool lool lool te mbëggeel mooñ ci dugal ba ñëw bañ dem li ñu am personnel tam bu bari xam nga ñu koy sant yàlla quoi buñ paree ku nekk sa lycée wërsëg ñu jox la lycée après ñu avancé dem xool leneen quoi. noon fii non non fii daanaka tabaski moom yaakaar naa kenn du lu wet dara parce que ñu bi autorisation mairie laay am damay dem mairie def bind demande après ñu bindal ma lettre autorisé ma ma ñëw teg fii samay xar loolu la quoi bâche itam yàlla def nañu dem na bañ am suñu ay bâche bopp xam nga yaakaar naa dépense yi bariwul quoi franchement. dépense yu bari xanaa dund xar yi ak lekk bi gars yi ak naan bi kese jeex na quoi mais daanaka moom à loolu moom dépense yi bariwul quoi ute naax avant nga xam ne dañ daan loué ay bâche loué mais yàlla dem nañu dimbali ba bañam suñu bâche bopp ñu ngi koy chanté bu baax quoi ñu ngi koy buñ sañoon ñëpp ñëpp ku nekk loo am am xar max yow duñ bokk fi ñu gisee quoi <laughs> parce que man si man booy xool xar moom xam nga man su ma sañoon li ma la wax rek ma sañoon fii ku ñëw man des fois ni day ñëw damay jënd xar sax xar yu ndaw yi damay wóone dama per mais des fois gis nit nga dawal si yërmande nga jaay nga per mais graw parce que li nga per foofu di nga ko gagné feneen quoi. il faut tam état tam jàppale éleveurs yi quoi loolu loolu mën naa mais à condition que état dimbale éleveurs yi parce que booy xool dund bi cher na repas cher na ngooñ cher na xam nga état bu yombalalee affaires yi bon duñu jar sax ñuy bon yaakaar na bu ñu amee xaru naar yi sax jël benn géniteur rek. xam nga di nga am loo xam ne tabaski un an nga embauché moom nga yaay xar quoi lu waaye am am xar yaakaar naa politique boobu état moo ko te ñi ngi ko commencé quoi ñi ngi def il paraît que si àll bi bu ñu noonu def euh, jàppale éleveurs yi ah waaye am moom xam naa di nga am xar quoi franchement adresse yi Wakaam la rond point monument renaissance en face terrain basket bi quoi waaw bergerie waa kër sang bi en tout cas maa leen di sant di man maa ngi doog a wax nangu maa a si média sax mais ren laa xamul sax xam nga ren sama mbokk la sama deret la moom fois Ouzin moom xam nga sama lépp finance laay def ko xam nga man bëgguma di feeñ lu bari moo tax mais en tout cas maa ngi di gërëm bu baax a baax di leen sant bu baax di gërëm samay ñaari waajur di gërëm ñi nekk fii yëpp xale yi mag ak ndaw yëpp maa ngi di gërëm bu baax a baax ah di kontaan si yéen xam nga vraiment li ngay def nii rafet na di ñaan élevage jëm si kanam quoi vraiment maa ngi sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax waaw jërëjëf. boo gisee ñu exposé fii xar yi euh, ay prix abordable moo fi am yoo xamante ni yàlla day dogal chaque année bu jot. dinañ bokk si ñii di njëkk tekki seen base parce que prix yi jaay moom mun nañ wax ni si prix yi la soo teelee jarle rek sa prix ba ngay jaay a baax waaw am na un million am na neuf cent mille am na huit cent am na sept cent cinquante am na sept cent am na six cent cinquante six cent noonu lañ ko toppatoo rek ba bu dee si biir base yi fii nii cent cinquante la yem waaw 150 dong mooy takk si biir base bi xaru 100000 duñ la takk fii quoi am nañ fi ay xaru 100000 xaru 110000 yu baax yoo xamante ni ñoom ñu ngi ne le euh, ku fi ñëw tamit da yaakaar ne sax duñ jaay xar ndaw te fekk ni ñoo dàq kente fi ñun ay kente maan lañ waaw ñun xar yëpp lañuy jaay. bii nii bii moom 800 lay jar quoi waaw kon bii 800 lay jar parce que man xar yi dama leen def ay catégorie waaw kon kon box bii nii yii ñoo tolloo prix quoi kon yenn ñoo tolloo prix quoi xam nga yu si mel ni kon yi yi un lay jar quoi moom daa des si loow un yi quoi euh, kon bee six cent lay jar yële na ay huit cent cinquante tamit la ñuy jar commande lañ leen di jëndee xam parce que xar bu mag balaa nga koy jaay da am client boo demee bay jaayee xaru un million parce que tamit doo fekk suma waa kër man suñu waa kër nga ñëw naa kaa ñu jënd xaru un million bi wala waaw. kon dañu am seen client macha allah sant yàlla ñoo xam ne chaque at bu jot dañuy oote ne bàyyi leen ma temps temps temps xam nga ñun tamit ñu bàyyi leen temps temps temps mais amaana li ñu leen jaayee baax ba noppi toppatoo bi baax parce que ñun gëm nañu ba tabaski bi demee ba nga xamante ni des na ay 4 mois 4 mois si lañuy ñuy préparer xar yi jox leen seen ax ba si fii nii dañ leen di xont xont bu baax waaw boo xoolee xar yi nii nga xam ne xontu guma leen waaye mel ni ñi xontu nañ leen. waaw kon loo nii. loo bi deux cent cinquante lañuy ñuy jar ñoom ñoom boo tànn rek deux cent cinquante la yi ñoom yi ñoom ñooy xaru ñooy xaru un million un cinq cent yi quoi dañoo jar moo tax ma tegee leen nii mais am na ñu nekk fee yoo xamante ni tamit brique un jar quoi yii yii boo gisee ma dugal yi waaw yii ba ma demee foire Adam ba ba gañee foofu noonu salle Adam 2018 bi ba jël troisième bi les gars yi di ma laaj production bi xam nga kon nag wërsëg moom jotoon na produire ah li mu jotoon na ah yi nga xam ne dañ doon dañ jotoon nekk enceinte léegi dañ jot a wàccee si diggante bi te wërsëg amaana heure bi daaw laa ko jëloon kon dama bëgg wan ni gars yi diggante daaw ak ren xaw naa liggéey naa quoi plus li ma jaay lii laa jot a waaw pour wan ni maa ngi liggéey si maal bi quoi moo tax ma génn ñi boo fas yéene leen boole jeune maal bi jeune maal bi daj dëpp la moom doomu Samba Linguère la. magam moo jëloon première fois xar yàlla bi waaw moo tax man ma jël ko xam ma boole kaax ñii pour pour mën si am dara quoi te am naa si moom yaakaar wàcceel na ma ñaar ñoo xamante ni moom waaw gëm naa ni moo doomu wërsëg dañuy am dara ko may wax askanu Sénégal di wax waa Wakaam surtout waa Wakaam ne leen xar yi seen xar la yéen ñëpp waaw bu ñu demee ba jël lu mel nii di ko def fii waaw pour pour pour waa ñëpp la di wax ni xar yi nag xar yi ñëpp la ñi bañ di bañ di romb. di xalaat ni ëpp xari yi day seer fii amul xar bu fi metti amul xar bu fi seer amaana diñ fi ñëw sañ ñu jaay la xar prix boo xamante ni da nga xanaa ñi dañoo dof fekk amaana du loolu ñun nekkul bénéfice la ñuy wër si xar yi wala wala wala wala wala xaalis amour la rek ak passion waaw sunu amour moo ñu yóbbul lii yëpp di ñaan yàlla sak année mu gën a yaatu ba nga xamante ni ku nekk da nga siy gis sa bopp bu soobee yàlla parce mbirum élevage tànku kanam kese la am amul tànku ginnaaw lii nii amaana si yàlla la du si loxo yi keneen kon ñun dañ koy ngërëmee yàlla di ko santee yàlla di ñaan yàlla affaire bi yokku saawaan baawaan ku nekk di si gis sa bopp ba ñi nga xamante ni bokkuñu si sax di si gis seen bopp te gëm nañ ni noonu lay demee ndax borom bërëb bi moom moom du ma wax mbaaxaayam quoi mais nitu kese la koo xamante ni day tolloore lépp wàccee boppam mase boppam booy ndaw yi bu ñu bu ñu meree sax mu ne ma booy lan la wala su ma meree booy ndaw yi sax mu ne ma lan la ma ne damaa bëgg booy mel ni man rek si liggéey bi parce que man dama bëgg li may def booy di ko def ndax li may def bu ko booy dee def rek kon amaana fii léppay rafet quoi waaw loolu lañ doon wax waa Wakaam waa askan bi. di leen wax ni bergerie waa kër sang bi moo nekk ni ñun ñoo yor assurance ñoo yor wërsëg waaw man la Ouzin assurance waaw ne ànd tax yéen si 2018 bi di ñaan yàlla di ànd ak yéen chaque at bu jot ak sama équipe bi ma àndal nii kontaan si booy yëpp waaw booy yëpp samay booy lañ waaw di leen gërëm di leen sant di sant ñëpp nag waaw waa gars wala waaw waaw ah, laadum rek ah.